salaamaaleykum fii nag mooy xabru bi nga xam ne Maam Matar Ndoumbé Diop euh, fii la tëdd moom mi nga xam ne moo sancoon dëkk bi tuddee woon ko Madina euh, moom lañ bëgg ziar nii incha allah yal na yàlla taas ñu ci barkeem.